jaara maam moor moor jaaraama jaaraama jaaraama masi ko ni jaaraama jaaraama soppe Maam Mor jaaraama ay waay jaaraama jaaraama waa sakku xam-xam jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama haji Maam Mor jaaraama eh jaaraama jaaraama a loxo ye jaarama jaarama jaarama doomi yaay ndey mbuub jaarama jaarama doomu bay dam beng jaarama jaarama doomi bay dam beng jaarama jaarama ku mu jaral jugal taxaw loxo jaarama jaarama jaarama suñu sang ba ca Madina la برسول الله يا محمد رسول الله

الخيس قوام محمد المستوى صلى الله عليه وسلم من الرمي أرحمه محمد المصطفى جميل جليل في الحلول الحزمان في الأرض بريق طمهجان وسماء

ano soppe Serigne Gora Mbengue jaarama jaarama juga soppe Serigne juga Mbengue jaarama jaarama soppe Baye Ndiouga bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki Thiénaba ak li ci aju waaye tamit euh, mboolem ñi nga xam ñi ñuy topp à travers Thiénaba TV ak yeneen organ de presse yi fi ne euh, di sunu mbokk yi nga xam ni ñoom ñi ngi ànd ak euh, docteur euh, Sidi Yaxya Ndiaye di waa Durus TV yéen ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo bu tedd boobu ñi ngi ciy jiital sunu kilifa ñun ñëpp ca mooy Baay Sëriñ Assane Seck mi nga xam ni. moom mooy xalif généralu Thiénaba ak li ci aju waaye di suñ dëkkandoo sax boole ci waaye ñu def ko bàyyi mu def ñu doom feeñ na keroog ci heure bi ñu ko seetee ñun waa ànd sàkku xam-xam ma ànd ak lenn ci ñi jite mbooloo mi ci jigéen ñi nim ñu recevoir ci ay kàddu ci wàcce boppam ñépp la kawe seen njort kon ñi ngi koy ñaanal moom sunu kilifa googu di bàyyi sëriñ Assane Seck yàlla na ko yàlla may fanu gudd gu ànd ak wér gi yaram di nuyu di ziyaara imaamu ratib di imaam sëriñ Cheikhu Amadou sekk di ko ndokkeel ci tafsir bi ci jumaa ji ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara moom ak mboolem ak ima yi nga xam ni ñoo seq liggéey bu tedd boobu yàlla na yàlla defal leen képp ku ñu jiite yàlla nangul ko kun jullee yàlla na ko yàlla baal di nuyu di ziara autorité administrative yi di ci jiital monsieur le sous-préfet di monsieur Babacar Wade ñi ngi koy nuyu di ko ziara di ko jox wàccuwaayam di nuyu monsieur le maire de la commune de Thiénaba El Hadj Talla Diagne ak mbooleem responsable politique yi ne ci gox zone bi di nuyu chef de village Serigne Alassane Niane Seck di ko jox wàccuwaayam jël mboolem nuyoo chef de quartier yépp di ko teg ci loxo sunu chef de quartier xam ni moom moo jiite quartier bi nga xam ne ànd saako xam-xam foofu la siège am ne te mooy kër ñoom sëriñ borom baax sekk ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara mi ngi nii toog sëriñ Cheikhu Tambidou mi ngi nii sama ginnaaw ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam di nuyu mbooleem waa kër maam Ngusaan Maajooja jël nuyo bi teg ko ci élage loxo élage Pape Mboup Maajooja waaye bu ñëwee fii ci tant bi ki leen fi nekk seen kilifa jamono ji bu fekkee sama gis naxuma mooy sunu mag di sëriñ Makura Mboup mi ngi nii toog waaye nuyo boobu yépp ma teg ci loxo koo xam ne nii na nit ñi xam ne ku cher ci man la parce que yàlla moo ñu boole nag loolu boole yàlla la muy El Hadj Pape Abdoulaye moom moom sama xarit la yàlla moo ñu boole koñ bii fi juddoo mu mage ma benn at waaye booba ak léegi man ak moom bu ñuy xoolante ci ay bët lañuy ñuy xoolante kenn du sëgg ndax lépp rafet yàlla boole ñu nekk ay ndaw ci koñ bi lii muy def nii da koo foowe man maa ngi fàttaliku bi ñu nekk xale ci koñ bi dañ daan organiser jël ay pot meew takk ci ay fil de fer ñu daan def ay daayira ci koñ bi loolu moom bi ñu xale loolu maa ngi ci fàttaliku boo xam sax yaa yaab sawaat gi lañ ko doon defee loolu fàtte ma ko ba léegi kon El Hadj yëgal ni sunu kóllëre ñi ngi koy fas lii du lu la woo dañ cee bokk yow ak sa waa groupe yéen ngi nii toog teel la ñëw 11h ngeen ñëw ne ci weeru koor def animation bu am solo bi yàlla na yàlla fayal ñu leen. ni ñu àndee woon ca 2018 ca xaramayni nii lii nga def nga yëkkati ko ca Uxut yàlla na yàlla def équipe boobu nga ni lekkee xanaa demaat la wax waaye ku fi demul moom nekkatu fi loolu yàlla mi ko man ca di joxe bie yi non yàlla nañu ko yàlla jox soo ko ñëw ci kilifay waa ànd saako xam-xam. ndax lii munta am lu dul ci ndigal ñi ma àndal di jàppalante ñoom ci xam-xam ñii samay yaay lañu ñii samay impaañ lañu ñii samay tànt lañu ñii samay mag lañu ñii samay soxna lañu ñii samay rakk lañu ñii samay doom lañu ñii samay jarbaat la seeni kilifa ñoo leen di bàyyi ci heure boo xam ne ni bu dul weeru koor heure attaayal sa borom kër la ndax 16 heures mooy la quart ku ci génn di jàngi kooku da bàyyi loo waroon defal sa borom kër waaye nag moom mool la la ngay def laa gën a kontaan ci nga toog di ma attaayal soo ko ñëw ci ñoom nag ndax lu leen seen borom kër bàyyi woon bàyyi ñu jàngi ca bugguñoo jàng nag ah kon nag du sotti nag ñi ngi jël seen nuyoo di ko teg ci loxo présidente soxna na koy ñi nga xam ne El li muy wax nee nee na man ak yow xam na ni ñoo ko féete kaw ci ay at waaye nee na ñun ñun ay rakkam lañu ma ne ko nangu nañ ko ci bu wér a wér a allah muy soxna na koy ñing ndax it wax na dëgg ndax sunu mag lay àndal muy sunu mag di Serigne Ibrahima Mbuub ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu trésorière soxna Ndeye Maguette Gueye waaye ñëw di nuyu sunu impa ñanga Mbodj mi nga xam ne mooy mooy la chargée de la communication ci mbooloo mii di ànd sàkku xam-xam loolu dina yóbbaale mboolem képp koo xamante ni bii yaa ngi ne ci mbooloo mi rek di ci yëngatu ñu ngi lay nuyu di la ziyaara sunu gan gi xam ne ñetti at la tegale ren nag moom dafa maa teel a dànkaafu ni ma naa la nangul sama dernière nangu ma ne ko waa man dey maa ngi naan sama xel waa man dey sama sama ñetti càkkute fa ngoog léegi booy pare dinaa xool ba xam ndax di man nangul loo bañal waa ànd sàkku xam-xam ndax bii par maa leen léegi yéen sant leen ko seen bopp ndax man moom nee na man ak moom agsi nañ terminus ndax nee na trois ans ngeen ni muy tegalee di ñëw man loolu laa ko doon sant bu paree nag yéenee xool ba xam yen yéene koy sant ak boo ngeen ko santee ndax doo leen gàntul waaw la déet kon docteur ñi ngi lay nuyu di la ziyaara di am ci yow cofeel bi jàng jotee jàngi nga li nga war a jàng sa suufu waajur jàng nga jóge fa dem ca Louga for ci sa àll la la yàlla may bi ngay admis ci ñu war laa yóbbu université Madina booba internet amagul woon booba da ngay woo nit ni ko wool ma diw moom bi ñu koy woolu yenn saa ñu woo ko du ko jot ñu ni waa kon bu fi ñëwee nee ko diw ñoom diw doon nañ ko woo ba yàlla def tawfiq ñu koy wër ci téléphone ba gis ko ndekete yooyu lañ ko doon doyee mooy bàyyi li ngay def ci nga ñëw Madina dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga mottili foofu sa àlluwa foofa boo ko dégloo muy wax rek di nga xam ni lam fa waroon jàng moom jàng na ko waaye bis boo nekkandoo moom ci aj màkka yenn saa ma jiital sama mbooloo di ca jamaraat ya ko mu jiital mbooloowam te ñi muy jiital mooy ëpp fopp ñi may jiital man jëm ca jamaraat ya sama xol bi glace moo ciy nekk ndax damay xam ni ku bokk ci man laay nuyoonteel waaye kenn ci ñu ñaar nag tey amul jotu moromam ndax lin la responsabiliser moom moo bari bu ko defee docteur ñëw ko ci sa dëkk dëkk bi say soppe rek ñoom ñoo fi nekk dëkk bi day dëkku diine 1882 ba léegi maam booy naan àll ba àll wa allahu akbar ay kilifa yi diine nekk fi di nit ñoo xamante ne bii lépp loo gis ci turu diine ci dëkk bii ñoom ñoo ci joxe ndigal ndax nag lu ñu fi joxewul ndigal mënut a jàll de ndax dëkk bu nekk dafa am ak kilifteef ñi ngi lay déglu ñi ngi bëgg ci yow yàlla na yàlla defal la tawfiq defal la taysiir yow ak uh, sunu mbokk di cheikh Chérif càndum xam ni kuy topp say conférence ñaare bu la gisee da koy gis ci wet ga mi ngi nii toog ci ginnaaw ñi ngi koy jox wàccuwaayam di uh, koo xam da koy xool rek sopp ko ndax l'islam bi ngay gis ci kanamam programme bi li koy ubbi ngeen may ma nag ma ma ma takk sama verre yi pour mën a liir lii baal leen ma dégg ngeen akay ah, euh, El Hadj Pape Abdoulaye wax na lu am solo mu ne ñu ngi nekk en direct ak sunuy partenaire ca mooy Thiénaba TV gis nga Thiénaba TV xam nga organe de presse bu nekk day am kilifa bu ko neexoon lu xew day toog yebal ay élément wam waaye DG Alpha Ibrahima saar bari na lu ñuy xewle ah lu ma bokk bokk wala bokk ma ma jiite ko bu ma gestoo moom laay gis moom moo jiite équipe bi moom mooy ñëw toog am na benn bis sañ Paate Seck ni ma imam yow sëñ Alpha Sarr dalaa bëgg ma ne ko noonu du dab yàlla moo ñu boole yàlla moo ñu boole ca lépp nga rafet mais noonu aussi élage la ñuy conseillé gisa DG Alpha Ibrahim na ko ca la ba gépp di ñaanu ku bëgg wax ju rafet la ku bëgg doxalin wu rafet la maam sunu conseil a à distance yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ko siir waaye sañ mbay Babacar Niang rajo xam ni mooy l'animateur religieux ba mu naan bu ma yàlla maye ay rajo ma animé sama dëkk tey mi ngi nii yàlla na yàlla def lu ngeen man ren ngeen man lu ko raw deween parrain bi nag di sunu kilifa di sunu mag di El Hadj Ndiouga Mbeng El Hadj Ndiouga Mbeng produit Thiénaba la doomu canaba la canabaa ko juddulu waaye kenn ku nekk ak fa la yàlla orienté nit boo demee ba bépp tànt alquran bu mag buñ koy wootee dañ lay xalaat loolu sant yàlla la tey nag tey nag incha allahu rabbi xam naa li nekkoon aada mooy ñuy toog di xaar pare bi ñëw waaye loolu ak lii war a nekk tey du bokk donte nag ak ñëw moom jiitu na fi ñëw na ca ca ca bu nu àggee ca war a teewal li tax ñëw na di nga xam ne ñëw na moom dani ma yow yaay sama rak dégg naa nga bëgg délégation bu ñëw def accompagner waaye yow foo fu ma ne fu ma nekkul yow yaa fa nekk sama enveloppe ci sa loxo laa koy teg pour wax la ni yow yow yàlla moo def nga doy ma sëkk ci lépp lan mooy ngantu El Hadj Ndiouga Mbengue Sénico instant bi ñiy concoural ñi nga xamante ne bii dañuy jongante au niveau national mooy nekk ci réew mi di concours ba xam kan mooy jël pay bu suwaa ci dimanche ji lañuy xam kan moo jël pay waaye jamono jii ñoom ndongo yi ñu ngi leen loger hôtel ak seeni sëriñ daara El Hadj Ndiouga Mbengue mooy ki nga xam ne moom mooy coordonné loolu ci chaque ngoon yaakaar naa sax am na ñu koy gis ci télévision bi muy jàllale ay résultats kon euh, Sénico bi muy nangu lii date bi booba Sénico jàppul woon la 17 waaye bi élection yi ñëwee la le 24 lawaa waa Sénico def ñoo d'urgence ñu gis ni kon fan jàppoon seen final du baax ñu gis seen biir def ko fast track indi ko le 17. keroog bu ma déggee déclaration bi laa woo El Hadj Ndiouba Mbengue ni ko xam naa am nga ngant moom doo ñëw moom ndax nag réew mi du la soxla. àddina parce ñaari concours moo am national ak international am na ñu ñu jóge bitim réew ñëw ñoom ñu ngi seen concours résultat yooyu yëpp suba la ñuy joxe ñaari résultat yi ca El Hadj Ndiouga Mbengue moo fa nekk. kon loolu mooy li nga xamante ne bii mooy ngantam ci tey bu fekkee gisuñu ko fi ci it kenn ko fi mën a gis tey ndax ma nga ndakaaru waaye xolam ak poosam moom jiitu na ko fi incha allah bu ndem ba toll ca dina ko jébbale comme ni mu ñu ko sante incha allah. Euh, DG Alpha Ibrahim nee na ñu ñaanal doomu Thiénaba ja fa nekk. ndax nag sunu xarit muy Abu Taaha sëriñ Daara Mouhamed Alioune Gueye nee nañ ci boole al makki wal madani dafa am ndonga ca yóbbu na ko fa ca DG Alpha Ibrahim nee na nañ ko ñaanal mu jël pay yéen ñëpp ne leen yàlla na jël pay yàlla na ko yàlla def. résultat yi fi ne concours moom pare na waaye ña fa nekk kenn mënut a xam résultat bi loolu suba la ba ci El Hadj Ndiouga Mbengue sax mun koo xam suba jury bi ñooy génn joxe résultat yi. waaye lañu waroon def moom xale yi moom def na ko ba pare toog xaar résultat moom moo ci des yàlla na yàlla may ñu ndam bu ko defee mbokk yi bala ma yox docteur Sidi Yaxya mu ñëw ñun ci tomb bi nga xam moom la ñu waajal te mooy wàccuwaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu boroom ak place yonent bi ci diine ji day may may rek ma jaar ci turu ñi nga xam ni dañu leen di rendre hommage ñii nag naka lañ ko tànnee bi ànd sàkku xam-xam commencé seeni seenum njàng ci koñ bi ñi dundandoo ak ànd sàkku xam-xam maam daal njàng mi nekk fi ñuy dund ba pare dëkk ci koñ bi ñooñu lan tànn ñi wàññeeku pour rendre leen bu ko defee ki ne ci bopp bi mooy sunu tanta Adja ndey faatu Dia mooy boroom kër soxna si borom kër gii di Papa Omar Sy xam ni ñaari édition yépp moo ko tudde woon sunu tànta ji aj maaka gi paase laa ko mujj gis ndax man maa demoon otelam di ko seeti ndax xamoon ni sëñ Birane Diagne borom kër gee moom la àndaloon ma ñëw nuyu sëñ Birane nuyu soxna si ca fu ma masaan a gis ndeysaan day encouragé keroog laa mujj teganteeg mbët moom bët muy sunu yaay Adja Ndeye faatu Dia ñaareel bi di sunu yaay soxna Awa Seck xam naa damay lim rek continuer pour ba a jël temps di commenter ci kenn ku nekk ci ñoom mais buñ paree dañ leen di jox liñ moom ñoom sunu yaay soxna Awa Seck mooy yaay soxna Koddu Sañ waaye tamit sunu yaay di soxna Say Ngom moom mooy gorowu sëriñ borom baax Seck waaye su mbokk sëriñ Mbóoj jàlloo moom xam ngeen ni doom la ci yaa euh, Awa Seck moom it ci koñ bi la nekkoon nekkoon dafay ànd sax xam-xam muy Serigne Mbodj Diallo waaye tamit sunu mag di soxna Issa Mboup mu sunu waajur bàyyi El Hadj Ousseynou Mboup di mag ca bokk ak ndey ak bàyyi El Hadj Pape Abdoulaye Mboup di woon sunu mag ci koñ bi moom it ci ñuy rendre hommage ci la bokk waaye sunu euh, rakk. soxna nday Gey Mbuub di woon doomu sunu yaay soxna Ndey Gey Mbuub dëkk fii ci kër Baay Talla Penda moom la moom dafa bokkoon ci njàng moom da doon jàng si da jàng si moom it ci ñi ñu rendre hommage waaye sunu mbokk soxna soxna deer di war gorowu yaab sa moom it jàng si moom it ñi ñu rendre ci la bokk waaye sunu mbokk sëriñ Abdoulaye Jaw Jóob di doomu yaay Absa Wade moom it ñi ñuy rendre hommage ci la bokk waaye sunu yaay di soxna Fatou Sow di yaay soxna Issa Thiam ñi ñuy rendre hommage ci la bokk waaye sunu mbokk Serigne Ndiow Guèye di woon borom këru soxna Bintu sekk ñi ñuy rendre hommage ci la bokk waaye sunu set man dama sunu set sama set la man euh, muy Serigne Daa Mboup di doomu. sama mag ji ci ginnaaw te ci ak mbokk muy sama jarbaat sëriñ Makur Makura Mbuub moom it ni ñuy rendre hommage ci la bokk te jàpp naa ni ñi ñuy rendre hommage moo ci gën moo ci mujj a génn euh, àddina ci lu ñu teewlu ci demin wu tiisoon lool waaye nag fekkoon fi ñu gëm nekk ay waajuram kon li ubbi bi mooy dañuy bàyyi docteur Sidi Yaxya Ndiaye mu ñaanal ñii ñuy rendre hommage bu ñu paree nag bu daanelee ñaan gi rek.